ji tey si kër sëñ Touba gi. waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. maa ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare. di ñaan suñu borom mu jéggal lu suñuy bakkar yàlla defal nu ñu teewe ko ay at yu bëree bëri. yéen itam ngeen yàgg koo teewe seen télé bi ngeen dem ba mu bokk ci télé yi gën a kawe. ci barke sëñ Touba ak Cheikh Ibrahima Fall. incha allah xanaa kontaan rek bég ndax bu ñu nee kër sëñ Touba mooy kër lislaam mooy kër jullit yépp te dafa ñaanoon suñ borom ne ko nanga ma defal fépp foo xam ne sama barab la rek na doon ab jullikaay kon defe naa ni barab yi ci la bokk ah ñi nga xam ne ñoo ko taxawee ña nga ci li leen sëriñ bi digal lim leen tere yëpp ñu ngi koy bàyyi sëriñ bi nag lim digle mooy li yàlla digle mhm. mooy li yonent bi digle ndax moom la mu xoon leer na leer na naññ dara taxu koo ñëw lu dul yeesal sunna sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon daal na ngeen xam ne sunu xol sedd na sunu xel dal na noongi ñaanal mboolem jullit ni ñaan suñu borom nag mu def jàmm ci réew mi sëñ tubaa nag nee na jàmm moom xamul lu ko gën fii xamul lu ko gën fa ñu jëm lay lay la la val lay lay la la val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 se fal bayu góor ñi faal faal kamal ngaaw la ilaha illallah faal ama daaw zikruhu akbaru la ilaha illallah faal la ilaha illallah jaraama Seex Ibra Faal yaa baax la ilaha illallah amul baat bu ko gën a rëy amul lu ko gën a màgg si àdduna la ilaha illallah la ilaha illallah moo la sëñ Tuubaa ne ama daama sikruhu akbar amu baat bu gën a rëy la ilaha illallah la ilaha illallah moo la yàlla di tàgg boppam naan huwa allahu alladi la ilaha illa huwa alimul hayy wa saaluhu wa rahman rahim la ilaha illallah faal moo la maam Seera Faal baat boobu rek la sàlloon muy la ilaha illallah la ilaha illallah eh, e kooku mooy Lamp Fall Babul Mouridine may sa biyo Kumba Fall Mame Cheikh Ibrahima Fall la ilaha illallah rek la naan saxoo la illallah Fall hmm. la ilaha illallah e eh, Mame Cheikh Ibrahima Fall nee na dënub góor si kat deen tudd baat bi muy la ilaha illallah laa mi du wax lu ko gën a rëy la ilaha illallah la ilaha illallah Fall laa ilaaha illallah. ba du gis baat a rëy laa ilaaha nopp du ko dégg laa ilaaha illallah. laa ilaaha mooy baat bu asamaan mooy baat bu téye moom laa ilaaha illallah. am di faaloo Cheikh Modou Mbenda Fall laa ilaaha. illallah mooy baatu ismu lay azam mooy baatu màgg bi moom la yàlla di taggee boppam moom la yàlla di kañee boppam naan laa ilaha illallah malikul xuddus salaamul muminul muayminu laa ilaha illallah fal laa ilaha illallah ridan wa rahmatan wa barakatan min allahi albadi barke Cheikh Ibrahima Fall maa sha Allah noo ngi leen di santaan nag bu baax a baax ci seen pas-pas ci seen yéene yow itam ak sama caméraman bi nga xam moom mën naa ne sama rakk la mën naa ne sama doom la ndax way juróom sama mag la sama lépp la ñu bokk ma jenn maam ji su démb doon tey nii fi ma taxaw war na fee mën a taxaw ndax koo xam ne abdou xaadir kanay sa maam uh-huh. loo def lu dul jàng ak jàngale da ngay juur uh-huh. seeni maam ci alquran rek lañ mos a nekk kon noo ngi ñaan sëriñ mu def lu taw feex dégg nañu ci yéen lool. nee nga may ba xas na. ak mal wara wala sam su musi rek نيل فضل المسرين الله والفضل عند الرسول الله قرار ايه سنت تبع خديم نانا كان دوتو من رسول الله كان دوتو كيسيتكو من رسول الله رام الورى نيل فضل المسرين الله والفضل عند الرسول لله قرار سيدي توا سيرو خادم نانا لب لي نانا لب لي توفيق سيدي توا نانا مسيرة علي سلا سا كوب كده مسمو كلتا يدي لا سيلت لا سيمو اي نانا كي نك بولين كو تكال كين بولين كو مانغال كين نجي مومو كي حمات موم لا يالا تانا بوبو نكو ياغن نيب باسل وباس لمن لان ومن جار اي نانا كي مو كي حمات موم لا يالا واخني بولين بوغي مو بوغي لين بوغي لين كو خول كنو تيبون الله فتبوني فرات te xiso ibn abdallahi bil fudala e eh, taxawal foofu nee na bu leen fontoo nag bu leen fontoo ki nga xamante ne mooy doomi abdallahi ji muy rasulullahi fala te xiso ibn abdallahi bil fudala e eh, nee na bu leen ko sallalu jox leen ko cëram kii mooy doomi abdallahi ji mooy rasulullahi inal kawakiba yuxfiha sinimar e eh, Sëriñ Tuubaa nee na kooku mooy tim bopp yëpp moo ramu ne ko samsu sumusi raasu ruusi xayru lanisi li lawliyaay naa ko sifaar su duuri diye u duuri bari bu نانكو عايشو ساكوري ليس الكفوري نافي النفوري ودي حداي نانكو جنات هادي نيران هادي فالفضل باري لي وقلاي كوكو ما رسول الله نير رامل ورا رامل ورا نيل فضل المسرين الله والفضل عند الرسول الله يخرى لا يقاني فليمك رسول الله مناقوه أكمل ورا حلقا وقلحا زهرا والمثل قط لم يرى ولم يرى في ثيابه نانت يا أحمدنا رحمتنا حامدنا نحمتنا محمودنا فرحتنا والجد مذل يمين قد جاء مصلي على رسول الله ورا كما الورى نيل فضل المسرين الله wal fadlu inda rasulillahi xara mu jël léppam jox ko ko nag naa ko yooyu rasulillahi jox naa la sama lépp ba jël dërët boppam naa ko dammi wa ahli wa awlaadi fidaahun lahu jox naa la sama bopp joxla sama direct joxla sama ñëwa dem banan bëgguma bëgg rasul lay tan bëggatuma doom bëggatuma soxna bëggatuma dara na ma mahabbati al muhtari sayidina khubbil ma'anin wal ahli la wala neer ma sayid bëgguma bëgg rasul lay tan bëggatuma dara ramal wara wara ramal wara na ila fadil al musrin allah hmm. wal fadlu inda rasulillahi xara eh moo ne maam ku bëgg ngëneel da ngay dal ñëw si rasulillahi na lu nit ñi bëgg bàyyi leen ko ñoom bu nit oto bàyyi ko ñoom buñ bëggee kër bàyyi ko ñoom waaye bu la kenn gën a bëgg rasulillahi ngir maanaam loolu mooy tawfiix àdduna ak alaxira moo war a mu ne xubbul nabi fardun yafuuxu tasniya wa fardan jama yaamun ya suñ tubaa nee na lu la waaye ëppale bàyyi ko moom waaye bu la kenn gën a bëgg rasulillahi taman waraana ila fadlil musrina allah والفضل عند الرسول الله خرار نعم. كلتا يدي لا سيل تلاسم بصل وباس لمن لان ومن جار لو من العلم ما لم يوي بشر أو جن أو ملك وصدر مسار يا ربي صل على المختار ورد به أنهم رداء لوا أود وتكرار فتى وهاب يا رساخ يا مالك لفت وابلي وارسخني بكل لانا ديخي أسلاجلا بالبسر ما مددي حتى أقيم لدين الله أركانا يسر جوحي للتوبة واهمني وخني أذى الورى والتتب لي سما إسكانا لك السماء والأراضي والهواء بلا مسارك لير المنصر كهوبانا أجب وسلم بتسليم على سند محمد والتابلي فائق بانا بني لك بانو نان سرين توبا لاندي وو مفروت اسم الله barke borom Touba attaaya ak kafe ak taalaale sunuy maam xamuñu ko woon Dakar ak xorom lanu daan baxal door a xëy jëm Touba dangaa tax nu beew tey ji ngir mbëtt mu ma doon ndawal lu wut ay talaa biir ak diw gerte jox Touba bu defaat tëgg ay lamb ca Tuuba jàkkaang fa nuy julli ña daan naan ña ngay ataaya wax leen jërëjëfe borom Tuuba